c'est la référence. kaddu gi euh, di àddoo fii ci studio Alioune Momar euh, euh, Lo taxum kaw ma ñu duppe Cheikh yi Maam Assane Cissé mbokk yi salaamualeykum dalee nak jàmm ci xibaaru wolof yi bu ngeen taaxirloo rek ma jukki leen li ci gën a fës li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci nag brigade douane bu poste Kër Ayib ak poste douane bu Saboya ñoom nag def nañu rek liggéey bu mucc ayib ab saisi nag la ñu daal di amal ci ay garab yu bon ak yamba lu ni mel itam ba ñu ko xayma ëpp na rek téeméeri million di dem saisi bu ni mel itam tax na pharmacien privé yi nga xamee ne ñoo nekkee ci zone centre bi ñoom nag jamono ji noyyiwaat nañu bu baax a baax nee nañu nag loolee giraawaali la naroon a jur ci biir askan wi docteur Ibrahima Diop daañu ko dégg ci biir xibaar yi ñaari fanu ak réew nag moom la ñu xàpp ci ñoom boutique yi nga xamee ne ñoo nekkee ci Sénégal gi yëpp te tënku ci ab kuréel gannaaw itam ñàkk a déggoo gu dox ci seen ak digganteeg kilifa yi mu soxal nag wàññiteefu njëgu euh, dundu gi Ardo Njim malee na jiite fii ci diwaanu Kaolack bi la mu xamle kon mooy ne wat gaal ak yëgoo euh, te it nag li am ba des mooy ne borom boutique yi euh, joxuñu leen cër loole itam dañ ca dikk ci biir xibaar yi gannaaw lëkkaloogu dox ci seen ak digganteeg waa ànd gësëm intersyndical bi nga xamee ne moo takkee liggéeykat yi aju ci collectivité territoriale yi ñoom nag ni ki démb rek ay morso yu xonq la ñu rango woon doon amal itam ab doxub ñaxtu doxum ñaxtu boo xamee ne day dugg nag ci seen juróomeel bi plan d'action mu soxal itam la ñuy xeex di ko laaj mu yokkuteg salaire yi loolee itam Kaolack nag desu ci woon ginnaaw daañu ca dégg Cheikh Tidiane Diagne mouvement bii di Medina Baye ca kaw moom nag lancé nañu ko rek officiellement lu ni mel itam ab ndaje moo ko mandargaal poñ yee ñu fa doon waxtaanee bu ngeen ñu toppee daañu ca dégg Cheikh Babacar Dieng bu li lépp yembee mbokk yi daañu ca teg xabaaru bi ci réew tàggat yaram ak li ci yéenekaay yi su ko defee xabaar yi buur ñu euh, ñaanalante euh, code sec kenn me ci machine bi dal nak ak jàmm ci xibaar yi. Le journal Ngoné Euh, ci kàddu gi euh, dalee nag jàmm ci euh, xibaar yi ak nag na ma leen ko junjee cent cinquante kilogramme yamba mooy nag la ñu jàpp rek ñoom waa poste douane bu Saboya nañu def itam ba gàntal pexe waaye Samba Boy moom Jérôme Prera ma nga xamee ne mooy chef de poste ba addu na ci andi ci ay leeral ñu teewlu ko ko Cheikh Ababacar Dieng. dañu amoon information bi ci guddi après si la ñu jël suñu oto dem sur les lieux boofu mu ngi tudd Ndiayène poste village boo xamante xamante ne mu ngi féetoo ci huit kilomètres diggante moom ak euh, Saabuya bu ñu fa yeggee si la ñuy seen ñetti nit ak ay saag yi ñuy dox après bu ñu ñëwee ba suñu kanam si lañ leen song mais bu ñu leen songee si la ñu wàccee seen bagage yi pour que ñu a oyof ñu mën a daw heureusement jot nañ si jàpp kenn actuellement mu ngi tribunalu Kaolack quantité yamba bu ñu jàpp mu ngi toll ci cent cinquante kilogrammes valeur marchande bi si douze millions francs CFA soo xoolee suñu jàpp yëpp chambréien dafa am boo xamante ne day gën a fës parce que récolte bi ci lay ñor mun ko expliquer également par opération boo xam armée sénégalaise jot na ko def au niveau du sud loo xam te na ay réseaux yu bëri bëri bëri bëri ce qui fait que ñoo ñëpp après bu ñuy évertué mun nañ ñëw au niveau donc de l'intérieur du pays moo tax ñu ci bëri ci frontières yi pratiquement foofu la ñuy a jàpp euh, les malfrats stratégie moom ñu fi mais comme ni ma la ko rek mooy que suñu liggéey bi en fait dañ koy beaucoup trop tablewu ko lii di garab yu bon yi itam eh, tiital na lool ñi nga xamee ne ñoo di pharmacien eh, privé yi nekkee ci zone eh, centre bi ndaxte nag bu rëccoon ba dugg ci biir askan wi mënoon nay jur ay loronge yu dul jeex ci wàllu wér gi yaram gi bokkoon na ca nag siro sëqat ya nga xamee ne itam ne juróon na musiba ca réewam bi lu ni mel a tax na moom a docteur Ibrahima Diop ma nga doon rafetlu liggéeyu douane bi moom itam ay kàddoom ak Cheikh Ababacar Dieng dama waxoon léegi ne dañuy gërëm d'abord waa douane ci liggéey bu extraordinaire ñuy liggéey ci de la frontière di remercier vraiment ci collaboration bi ak ñun pharmaciens yi je pense que lii yëpp ci liggéey protéger seen population ci lañ nekk parce que bi dañu laaj ñu soxla leen parce que dañoo nekk ci benn pays frontière lié temps yee passé tudd nañ ci benn sirop saxat yoo xam ne dañoo soupçonné yooyu ñoo leen rey te sirop yi dañoo bëgg a bañoon mu dugg Sénégal donc loolu force de sécurité et de défense ñu ngi doon liggéey liggéey bu am solo tey nag ñu jàpp ay garab kër ayib bi ñu xoolee am na ci ay sirop yu xale yu bari yu ci nekk mënuñu wax ne nag c'est conforme ak jàpp nañ sirop yi alhamdulilah bu ko jàppee te garab yi ñu jàpp douane au niveau frontière bi suñu paree chaque année dañuy dajale garab yi yëpp lakk ko taal ko si devant les forces de sécurité à devant le gouverneur devant le procureur donc loolu na population bi seen xel dal si côté boobu noonu mais beneen bu ñu gis a gis aussi si danger garab yooyu mooy que dafa am garab yoo xam ne si benn cas lay expliquer mooy Efferalgan Efferalgan koo yàgg boo xam ne si bouteille lay nekk am boo xam ne si plastique lay ko dosé à 500 milligrammes bi nekk si gramme alors que amul Sénégal mën na ñàkk prêter attention ki koy naan su jàngut su xoolee un gramme la gis ne plastique la rek mën na si jël ñaari comprimé te su jëlee ñaari comprimé déjà am na deux grammes mu naanaat deux déjà mu mu naanaat deux déjà mu amaat six grammes am toxicité au jaay si lu mooy di yokk ngóor garab boobu ñun dañ koy jaay mais duñ ko jaay sans ordonnance ñu feebar ñooñu lañ koy jaay mais si prescription médicale mais dosage dafa am solo si garab léegi dosage yooyu cinquante milligrammes la war a ak cent milligrammes mais yi ñuy jaay si marché bi faux médicaments yi ñoom dañ jël cent bi ak cinquante bi ñu boole ko muy cent cinquante milligrammes lañ ko dosé donc loolu nit ku am tension nga jël ko guddi bëgg a sa jabar soo amee tension mën na la indil benn choc anaphylactique mooy maanaam nit di sëy ci ba yàgg rek dee rapidement sur le champ si kaw lal gis nañ ko si noonu ku ko gis garab daal balaa nga koy naan demal si pharmacien bu ko jàng nga laaj ko lii lan lay jëriñ mu soog la si wax xam-xamam nga soog ko naan. docteur euh, Ibrahima Diop moomee nag doon addu euh, moo jiite rek pharmacien euh, privé yi nga xamee ne ñi ngi ci zone centre bi ci pàttali nag ñaari saisi yooyu ñu daal di amal ci diggante yamba ju bari ak faux médicament xayma gi ci wàllu koppar mi ngi tolloog cent dix-neuf millions maanaam téeméeri million ak fukk ak juróom ñeent. yéen a xibaar yi ci Alfayda FM 90.1 ñu daal di euh, ci euh, xibaar yi lii itam euh, junjoon naa leen ko ab doxub ñaxtu nag lañu am am mandaxgaale woon seen juróomil bi plan d'action ñoom liggéeykat yi nga xamee ne ñu aju ci juróom benn téeméer ak benn collectivité yi nga xamee ne ñu ngi ci Sénégal ji ay yëpp lu ni mel itam la ko sabab kon mooy ne ña ngay des rekk be tey di laaj itam yokkuteeg salaire yi Kaolack yëngu woon na ca boobule doxub ñaxtu Cheikh Tidiane Diagne lëkkaloo la gu dox ci diggante liggéeykat yi nekk ci wàllug wér-gi-yaram ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci bokk moomeel yi seen cinquième plan d'action nag fii ci réewum Sénégal liñ ko màndargaale moo di ab marche diwaanu Kaolack desuñ ci woon gannaaw ñu ngi ko tàmbalee woon ci rond point orange bi nekk ci ñaari tali bu diwaanu Kaolack wutali cœur de ville bi ñu ñëwee nag ba ci terrain mbooloo mi fii la ñu amalee janoo bi ak taskatu xibaar yi ab du Ndiaye mooy secrétaire général national bi takkee mbooleem liggéeykat yi nekk ci collectivité yi yor kàddu ñaari pàcc yëpp. ay père de famille di liggéey laaj seen ak ak seen yelef ñu leen di dawloo ci naaj wu tàng bi xoolal ay magum jëmm taxaw tey ci naaj wu tàng bi depuis 9 ba léegi nii ci loo xamante ni mënoon naa ñàkk loolu affaire cuune la léegi dafa mel ni Sénégal ñaari affaire rek la wax te ñun loolu intéressé ñun lu ñu concerné mooy sunu àq ak sunu yeleef nañ ñu ko jox te daañu ko jox ci nii mbaa ci naa duñ ci dellu ginnaaw d'un seul doxalinu nguurub Sénégal naka la ñaawlu ak pàtt pataaral gi nga xamante ne nemmeeku nañu ko bi ñu tàmbalee grève bi lee ak tey gilee année sociale bi nga xamante ne nag nguur gi dal na koy wax ñu ne tekkiwul dara ah ñun boog liggéeykat yi sentir guñu année sociale bi nous les travailleurs sentir guñ ko te dañ ko a sentir dañ a sentir ci njaboot gi lañ bokk mais dara doxul les travailleurs sont jënd naa saaku ceeb ak 20 litres saaku ceeb ñaata la mun a 23000 litre diwlin ñaata la mun a 23000 ma ne ko yéen xanaa 23 dafa nekk seen lamiñ te boobu wax nañ wàññi nañ li ñu doon ñaxtu ci quatrième plan d'action bi ñu mujj amal nag jamono ji dafa mel ni am nañ ci saafara muy seen yeneen nawle syndicaliste yi nga xamante ne ñëwuju woon jàppale leen ci xeex bi ni mel waaye nag fi mu ne am na ay coppite donte ne yéex na Abdou Ndiaye mi njiit li ne mën na indi lu bëree bëri ci li nga xamante ne moom la ñuy revendiquer les centrales syndicales inauguré notre secrétaire national de l'extérieur il a appelé le ministre Talla jox ko sama numéro ni ko na ma woo pour qu'on puisse discuter mais comme ñun dañoo nekk ay responsable xam fi ñuy teg suñu tànk nekk ay syndicaliste ku ñu jàppale baax na ku ñu jàppalewul tamit xeex bi ñoo koy xeex gis nga tey jii 96 heures yi ñu décrété maire yi bu fekkoon ni ministre bi woowuñu wallahi azim 120 heures lañ doon décrété ba àjjuma amul nag benn bataaxal boo xamante ne jébbal nañu ko préfet bu nag li nga xamante ne moom la ñuy revendiquer bokk na ki ñu yokk seen i payoor moo xam nekk ci santé bi yi wala ñi nekk ci collectivité locale yi. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne dañuy desandi ca googulee mbir ci lu soxal nag seen i ay revendication ak la ñu doon ñaxtu moom nag secretaire général national bu synthèse bi ma ngay xamle ne bi la yoon nag moom jëwrin ba leen jaboote seq na ab jéego ndaje maak la ñu doon waxtaan ak moom waaye yitam poñ yi nga xamee ne déggoo nañ ci ci wàllu doxalin commission de recensement ba ñu bëgg a jëmmal lii lépp nag moom Abdou Ndiaye àdduna ci ne début de solution am na ay kàddoom ak Cheikh Tidiane Diagne. mun nañu wax ni ñu ngi commencé di am début de solution le ministre a signé un arrêté pour les travailleurs des collectivités territoriales parce que article bu code des collectivités territoriales dafa ni bépp avantage bu ñu jox fonctionnaire état bi ça doit s'appliquer d'office aux agents des collectivités territoriales loolu ñun defuñu ko waxuñu ko ñoom ñoo ko def ñoom ñoo ko wax donc ci loolu la ñu sukkandiku ba finalement am nañ ci côté boobu satisfaction parce que dañ ni recensement bi fichier 2014 bi ñu yoree am ñu bëree bëree bëree bëri bëri ñoo xamante ne bi dañuy toog di xaar te mënoo ànd ak say nawle ñun ñëpp ñu ànd di xeex ba toll fii ñu ni nañ fay ñi ñi si des nañ toog xaar loolu xel mënu ko nangu ngor mënu ko nangu donc ci loolu nag léegi la ñu créé benn commission ministre bi signé na arrêté bi ñu nommé la commission de recensement trois mois la ñu waxoon mais on a dit que ni lii liggéey bi mën nañ ko liggéey ci weer man gis naa ni sax mën nañ ko liggéey ci fukki fan ak juróom parce que il suffit que nga interroger géologue bi rek chaque région agent yi ñu fay fay kan ak kan la seen matricule ak loolu yëpp donc léegi délai bi c'est dans un mois le 28 18 incha allah ci nañu commencé liggéey bi donc ministère yi nga xamante ni ñoom la concerné ñoom yëpp membre lañ ci biir commission bi ministre bi yaakaar naa d'ici la semaine prochaine dina am benn arrêté boo nga xamante ni bi aussi il va le signer pour demander au maire de payer parce que ñun ñëpp xam nañ ni maire yi ñooy suñu employeur d'accord yàq nañ fi yokk salaire état bi mais dañ koy appliquer aux agents des collectivités locales mais maire yi ñooy fay léegi nga fay maire bu ci mënul fay état seet nu mu la accompagner parce que ay possibilités bari nañ ay pexe lu ñu bëgg yaa ngi fi fonds de ngi fi donc loolu yëpp mën nañ ci sukkandiku bu ñu nee agent collectivité locale agent collectivité territoriale bàyyiwuñ kenn six cent une collectivité nekk Sénégal yëpp la concerné ñu nekk ci communes ñu nekk ci conseil départemental ñëpp tout le monde donc loolu la j'espère que d'ici la semaine prochaine daañu jublu ci liggéey bi ci recensement bi parce que ñu ngi wax augmentation mais am na benn augmentation giri point indiciaire bi de pour cent kooku moom bañ ko signé rek lañ ko waroon a appliqué ça tourne à l'ordre de cinq mille à wàllu wi xeex boobe nga xamee ni itam ne da ca caa lëkkaloog waa ànd gësëm yi lu ni mel nag luy jubluwaay bi ak coordonnateur bu ànd gësëm fii ci euh, diwaan bi moom nag àdduna ci euh, Mouhamed Ndiaye ne euh, duñu wéer ngànnaay yi fileeg nag la ñuy laaj lépp itam matalewul te loolee nag fileeg samedi la ñu cay xam lu bari lu may loolu itam dikkaat na ca ndaje maak jëwrin ba leen jaboote muy jëwrin gi nu denk wàllu collectivité yi Mouhamed Ndiaye ak Cheikh Tidiane Diagne santé yemul si fonctionnaire rek am na ñoo xam ne ministre de la santé activité di leen fay ñoo xam ne hôpitalu Sénégal yi ñoo leen di fay ak ñoo xam ne dañ dépendre si poste de santé yi ñu leen di wax ay ñoo ñu ni yëpp dafa am loo xam ne dafa sooxe si fay bi ñu waroon fayeeku liggéeykat bu fekkee dañ booloo di xeex ñu fajal ñenn ñi ñi si des ñu beddi leen dafay jaadu ñëpp ñu lëkkaloo pour que ñi beddi ñëpp ñu delloo leen si seen ay droit jalgat yi yoo xam ne il faut que mu jeex donc loolu moo waral ñun ñu taxaw di manifester tey ministre bi dalal na leen waaw ministre bi dalal nañu biñ defee quatrième plan d'action bi loolu sax moo tax cinquième plan d'action bi ñu nekk ni ñu def quarante huit heures au lieu de quatre vingt seize heures yi léegi bi ñu waxtaanee moom hôpital bu mel ni Ourossogui joxe na ay instruction pour que chef de service bi ñu folli woon ñu delloo ko waat place am sant Talibou Dabo jafe-jafe yi fa am convoqué na woon directeur bi pour que mu jël si ay matukaay lijjanti ko hôpital Mbour dafa am euh, centre boo xam ne ay rajo ay échographie lay def mais ab privé moo ko yor day liggéey rek mais hôpital bi gisu si boppam brigade bu ko defee saa buñ encaissé hôpital bi di si gis boppam parce que hôpital bi mooy fournir malade yi nga xamee ne dañ leen di war a defal rajo wala analyse joxe na si ay instruction mais comme instruction yi benn rek lañ gisagul ne réglé na ko mooy CDS yi motivation wu agent communautaire yi nekk si poste de santé yi parce que ñooñ da nga doon liggéey ba fin du mois nga am ay vingt mille wala quinze mille wala dix mille parce que dafa wàcc woon léegi ñu yëgalaat ko ba neuf ba mu nekkoon mu xal ko tuuti donc boobu arrêté bi génn na démb fin du mois bi dinañ ko appliquer non non duñ dakkal grève bi comme plan d'action bi dafa nekkoon si ñaari semaine muy cinquième bi donc samedi bii ñuy dugg war nañ def benn banque de sang parce que comme ay agent de santé lañ xam nañ ne am na ay malades yu koy yelloo donc Sénégal yëpp samedi dañuy def don de sang léegi nag samedi boobu tam si la ñuy def évaluation Dakar léegi xool plan d'action bi ñu retenir woon daje yi am si diggante bi li mu joxe ñu xool lan la ñuy décider incha allah. dalee ko nag ni ki tey ji alxamis jàpp suba itam ci àjjuma gi euh, borom boutique yi nga xamee ne ñoo nekkee fii ci diwaan bi euh, te tënku nag ci association nationale bi ñoom nag nee nañu daañu soobu ci ab grève loolee kon la ko waral mooy ñàkk déggoo kilifa yi euh, ci wàllu njëgu dund gi ka nga xamee ne moo leen jiite ci région bu Kaolack bi di Ardo Jim moom nag la mu xam xamle mooy ne considéré wu leen te it nag dogal yi ñu jël ci wàllu njëg yi mu ne arrangé wu leen benn du ñu ca génn ba itam Euh, rek daañu ca teg ay daan lu ni mel nag maa ngi ko yeggee Cheikh Tidiane Diagne. ñun de incha allahu rabbi alxamis bi ak ajuma bi dañoo bëgg a banque suñu loxo banque suñu loxo boobu nag du li ñu bëgg mais actuellement dañoo sës parce que mënatuñoo dem. lu tax ngeen bëgg a banque seen loxo. li tax ñu bëgg a banque suñu loxo dañoo waxte suñu kàddu mën na am yeggul fa mu war a yegg bien vrai que bi président de la république di def ay consultation on a suñu association mu dem participer ci consultation yi mais lañ ñu lañ ñu waxoon ci mbiri commerce état lépp jëluñ ci dara en considération mais ñu jékki-jékki nag ñoom indi seen i prix bëgguñu ko imposer te buñ ci demee wax dëgg dina métti ci ñun trop wax buñ demee dañuy jaay perte dañuy jaay perte te it non seulement perte bi mais daan yu métti moo ñuy fekk ci kanam parce que bu fekkee ne daan yu métti dañuy fekk ci kanam bien vrai que soble bi ak pomme de terre importé bi ñëpp xam nañ depuis fa muy jógee ba ñëw fii congelé décongelé congelé décongelé bi muy kaw vingt cinq kilos rek la moom te ñun bu ñu ko du dem actuellement ñoom onze ko wax mais actuellement dans le marché mu ngi douze te boo ko ak le bi ñu wax nañ ko jaayee ak euh, cinq cent vingt génn bien vrai bon bu ñu demee ci dans d'autres autres denrées moom boo tel que le riz ñu ne la riz ko jaayee trois cent yooyu ñu nar a delloo ji moom moo ñuy sànki parce que dañuy jëw jënd ceeb ñu tëjee le contrôle wala association des consommateurs ñaata nga jëndee ñu ne 250 laa jëndee fekk yow amoo 10 francs boo delloo léegi ñoom ñu la ciy jàpp ci ay 40 000 ay 50 000 ñu xam ne duñu arrangé. léegi yéen euh, lan ngeen bëgg exactement après grève. li ñu bëgg état du commerce mooy que le grossiste reste grossiste demi grossiste reste demi grossiste le détaillant nekk détaillant bu ñuy def ay consultation ñu tenir les réalités. waxtaan woowee nag moom Ardo Njim ma ngay andi ay leeral di xam xamle ne ne mi tam nag ña nga doon teew rek ci ndaje yiñ doon amal ci wàll wii waaye nag mu ne amuñu ca woon benn dogal lu dul nak ñu imposer leen ay njëkk ba tax na itam ma ngay sàkku ci nguur gi mu deltuwaat ginnaaw ci dogal yi joyanti wàllu wi Ardo Njim ba tey ak Cheikh Tidiane Diagne. ce que nous déplorons pour la région de Kaolack ak li nga xam ne dans tu le département depuis démb ak léegi ñu ngi may oo Gandiaye nekk ñoom les prix yi ñu fixé à Kaolack ñoom prix yooyu lañ leen fixé te ñoom dañuy def le déplacement daal di ñëw fi jënd transporté daal di dem bi ma ko expliqué dama ne nañu xool affiche yooyu ñu taf dans les boutiques c'est des affiches de Guinguinéo pas des affiches de Kaolack ay affiches yi Guinguinéo taf mooy le prix le riz l'oignon ak le pomme c'est des affiches de la commune de Kaolack mais le riz l'huile et le sucre affiches yi ñu taf dans la commune de Kaolack c'est 40 muy problème différent bi ñoom l'huile ñoom contenir ñu ci emballage bi ak le transport ñoom dañ na rek lii nga koy jaayee loolu nag bu ñu fekkee bu ko jaayee vraiment dinañ ci am perte métti. mais yéen ndaje yëpp woo nañ leen ngeen d'accord wala. waa xam nga ndaje déglu la ak ñëwal fekkee du benn bien vrai oo nañ ñu mais dama ne c'est des prix préfabriqués ñoom dañoo fabriqué seen prix ba pare daal dañuy oo o ci ñu nag ci prix yi nga xam ne yi parce que toog nañ fa presque ñun de 15 heures ba 19 heures d'accord mais bi mu ñëwee à la gouvernance c' était pas que pour ñu waxtaan mais c' est pour c' parce que li andi woon de virgule changé woon ñu ko le commissaire prix andi woon à la gouvernance c' était pour valider mais nekkul woon concertation waa tous les boutiques de la commune de nañ koy fermer à partir de tey boutique bu tëj balaa nga tijjati muy samedi. est ce que ñëpp d' accord nañ ci loolu. est ce que am nañ. c' est ce qui reste parce que le marché central et les marchés secondaires mais les boutiques di quartier ñun ñëpp am nañ seen aval il faut ñu dem ba nga xam bi ba pare ba def évaluation bi ñu defee évaluation compte tenu de cette évaluation là lañ mën a xam bi la war a doon. démb nag ña ngay waxtaanee wàllu njënd ak njaay ca la ñuy desandi jaaykat yi nga xamee ne ñooy yëngatu nag ci njaayum mayo Sénégal ak lépp la ca aju ñoom nag xalam demoon na bay neex ci coupe du monde bi nga xamee ne moom la ñu yaakaaroon nag ngir daal di niinal seen ko ceeb waaye jamono ji nag seen ak yaakaar ma ngay bëgg a yàkkeeku gannaaw ba nga xamee ni lenn ci sénégalais yi jamono ji ñoom nag dañoo tàmbalee découragé ak équipe nationale bi nga xamee ne dafa lajji keroog euh, ci kanamu Pays-Bas Alioune Badara Diop. ginnaaw matsam bu njëkk ci coupe du monde Qatar 2022 équipe nationale bu Sénégal jëlee ci ab défaite li nag jural na ab gàllankoor jaaykatu may yi ñu ngi fii ci Kaolack Ndangaan ñoom jaaykatu may yi li njàqare kese la ñu amee Kéba Thiam. sunu xel moom pour l'instant dalagul quoi mu ñun jaaykatu may yi moom yaa a ñu ci jaay ci mayo matu trois mayo wala quatre mayo te jour max bi sax daanaka macha allah wax dëgg yàlla jour boobu dañoo yendoo jaay mayo Sénégal yi ni dafa moom mi la nee na jamono juñ toll nit wax la say mayo ñaaw na sax problème la rax ci dolli stock yi ñu ngi gën di bëri. instant daal buñ la mënee wax mooy njàqare am nañ instant mënatoo dégg sax ku la ne sax maillots yi ñaaw na ñu ngi nii stocké maillots yi du jeex xam a gars yi ngi salsiwaat ay corner yoo xam ne ñu ngi ñëw ñu ngi feret maillots yu bëri ñu ngi ñëw accès gu ñu après saa yi nii mooy loolu muñ la mënee wax dëgg rek yaakaar amatuñu ko ku wax maillot wax folokaas jamono ji ñu toll nag ñoom moom la ñu gis seen bopp bu baax a baax di ñaan équipe nationale bu Sénégal am ndam bu ko defee mbir mi gën a yokk waaw waaw ñu ngi gis suñu bopp rek bu moom bu dóoree moom incha allah moom dinañ gën a moom gars yi ñu ngi xaw wàññe ko waaw folokaas moom parce que yi moom léegi mooy loolu moom xam nañ ne bu kaan bi commencé rek wala coupe du monde dañuy aj flocage yaa ma gën a noo non ñoom bu ñu rek ñu yokk mais bu ñu bàyyi ñu tamit ñu bàyyi suñu loxo waaw noonu la rek daal Sénégal gagné mooy li gënal waaw Sénégal moom jënd ak jaay nag day faral di dox ci coupe du monde bi rawatina équipe nationale bu Sénégal buy fubal ndaxte njaay mi nag yenn saay ñu gis seen bopp yenn saay nag mu nërmeelu wante nag ñoom jaaykat yi lee ba jamono ju ñu toll ñu ngi am yàqin ne équipe nationale bu Sénégal mun na see génn su ko defee seeni mbir gën a mën a dox. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM point 1. ngeen di ñu uh, toppandi uh, ci juróom-ñeent fukk yu uh, tombal benn di wéy ba tey di fi taataani ay xibaar yu wér te wóor ci teewaayu kilifa diine ak aada ak ci teewaayu Mouhamed Khalifa Niass ma nga xamee ne moo jëmmaloon ndaje ma mouvement bi de Medina Baye ca kaw nag lancé nañu ko ndaje ma nag amoon na solo lool ndaxte itam ña nga fa doon waxtaanee lépp lu mën a yëkkati Medina Baye ca kaw Cheikh Ababacar Dieng. def nañu ñu dippee Medina Baye ca kaw ndaje gi doon amee ci daal daaru rahmati li wax ci ay kàddu moo di song nañu lu métti defe naa ne Medina sax moom mooy Kaolack ndax Medina bu taaroo rek Sénégal yëpp taaroo te Kaolack dina taaroo kon tey suñ amee xalaat jël ne ñun dañoo bëgg a jàpp assainissement Medina ak lépp lu xam ne dafay taaral Medina ak liy defar Medina kon loolu tey dañ ciy sawar parce que loolu rek moo ñu yitteel nit ki fa nga nekk rek moom ngay sagoo te ñun Medina la ki nga xam ne dañ lay fekk si ay millions yi yi nit di fi ñëw mu nekk ci boo xam ne ki nekk da nga koy bugg découvrir ah, fu ñu la waxee foo dëkk nga ne Médina nit ki am mbégte ci loolu noonu vraiment dëkk boobu ñu dëkk dafa am beneen taxawaay buñ ko war a taxawee bu buñ ci jógee nag ñun ñëpp taalibe ñu ne dañuy defar ah ku ci nekk xam ne lii ñu jëm nii du lu neex parce que lu métti la ndaje gi nga xam ne doomu Baay Ñas ji di Mouhamed Khalifa Ñas nekkoon fi meeru Kaolack moo ko jiitee teewaayam dalal na xelu taalibe yi nga xam ne ñoo fas yéene taxaw taxawaay bi Omar Ñas turam bi gën a siiw moo di Ross ci la bokk te moom mooy maire bu ko njëkk indi ci Kaolack fii à temps ci magistrature ci lañ joxee Kaolack 3 milliards 800 projet ADR mu ne gannaaw projet matul maanaam Kaolack yëpp te ñëpp ko soxla nañ seet quartier yi nga xam ne ñoo ko gën ñu dugal ko fa donc projet d'assainissement fii ci Medina Baye ci magistrature ci lañ njëkk dugg fii kon bu ngeen ñëwee tey bëgg defar mbir na bëgg commencé assainissement moomu teew di prise de boobu loolu junj bu mag environnement faw ñu ubbi marché bii ñu tabax ba noppi lii moom mooy occasion jaaykat yi nekk ci marché xaar yàlla ñi ne jot na nag fi mu moo wax ci turu commerçant yi yaa seen bu li lay dénk daal mooy problème marché xaar bi ñaxtu nañ fu nekk dem nañ si sëriñ bi dem nañ si autorité yi dem nañ si média yi te bëggu def benn affaire boo xam dañ naan ndawu Médina Baye ñoo ko def parce que suñu titre di ñaaw parce que mënoon nañoo manifester wu def ni xale Ndakaar def sànni xeer taal matt def nangam mais dañ ñoo yar ñun ndigal la ñuy xaar kon si kaw ndigal boobu ñuy xaar mooy ñu nekk ay ndaw dénk nañ xam ne seeni doom ngeen di xeexal seeni doom ngeen di jàppale ci saa si nag kilifa diine gi mel ni lii ñëpp doon wax lu ko ñor la moo di ñu ubbi marché bu bees bu Medina Baye gi Serigne Mouhamad Khalifa Niass ne jog jot na suñ itti fi mu ne pour marché bi ñu ubbi ko ndax yàgg na xaañ na doomi Medina yi lu bari te loolu warut marché bi pare na tabax nañ ko tabax boo xam ne mucc na ay yaakaar naa ne su sëriñ bi ñëwee danañ fa dem waxtaan ak moom ak ñi ñu war a waxtaanal yëpp pour marché bi ñu ubbi ko parce que tardé nañu bari te nit ñi judduwuñ pour di tardé ci seen i liggéey kon ñu ci bàyyi xel bu baax. bu ñu noppee nag ci lancement wu mouvement Médina Baye ci kaw nga xam ne seen bibét moo di assainir Médina Baye ak quartier yu ko wër Serigne Mouhamad Khalifa Niass ànd na ak ndaw yi def pose premier pierre ci fédéral bi nekkoon fii nga xam ne jàpp nañ ne fi la liggéey assainissement bi nar a tàmbalee. Cheikh Babacar Dieng muy tegub xeer bu njëkk fa ñu war a dooree wàllu assainissement ba wàllu woowee nag ak nañu ko war a jëmmalee fa ñu ko war a jaar nag ba mbir mi mën a am réussite waaye itam kenn ku nekk ak na mu ca war a bokkee dugal ca loxoom lii lépp nag xam-xam ba mu ca am baaxee na ko rek ndaw ña moom ancien maire bu Kaolack bi mu Mouhamed Khalifa Niass la ñuy teewlu ak Cheikh Babacar Dieng. assainissement sax man duma ko tudd parce que assenisement mbiri état la waaye danaa wax ramassage des ordures ménagères suñ commencé ci jël mbalit mi nga xam ne Kaolack ci kër yi dugg ci beneen kër génnee ci quartier dugg ci beneen quartier li ñuy njëkk a xalaat mooy nañ ut dépotoir des ordures amagu fi ba léegi wala su fi amee nekkut loo xam ne lu nekk en forme la ak suñu réalité actuellement mbalit dafa am loo xam ne tant defuñ ko ci Sénégal te yaakaar naa état bi ñu ngi ci fi mu ne waaye Dakar lañ ko bëgg a def mbëbës tant que defuñ ko ci commune yëpp mbalit du fi jógee kenn mënu ko fi jëlee day dugg fii rek génnaat fii duggaat fii génnaat fii di wër dëkk bi jigéen ñi am ngeen ci responsabilité bu mag ndax yéen a nekk ci biir kër yi yéen a njar njaboot gi yéen a xam mbalit mi nga xam ne mi ngi ci ruq-ruqaan yi kër yi takku leen jóg xam ne yéen am ngeen ci responsabilité bu mag mairie yi am nañ ci responsabilité bu mag waaye nit ñi seen bopp ñoo war a setal seeni gox-goxaan mairie nag ñëw mën a indi ay moyens ak société bi fi nekk lënkaloog mairie signé contrat ak mairie ñuy jël mbalit mi di ko yóbbu ci fi nga xam ne fa lañ ko war a def mbalit tubaab bi ci seen bopp te xam mbalit or bu weex lañ ko tuddee de l'or blanc parce que mbalit xaalis bi ci nekk suñ ko xamoon danañ takku kenn ku ne di mën a am dépasse weer wu dee ci mbalit mbalit rek laa wax de man dem naa ci ay réew yoo xam ne seen conseil départemental yi wala régional lañ am ñoom dañoo lënkaloo ubbi ay usine usines yoo xam ne dañoo recensé kër yëpp ci dëkk bi kenn ku ne ñu defal la benn numéro su weer deeyee bés bu nekk kër dañuy seen mbalit mi yóbbu ca usine bi wala usine bi jaar ak seen oto jël ko yóbbu ñu noteel la yow andi nga ñetti kilo mbalit diw andi na fukki kilo mbalit su weer deeyee ñu calculer ñaata kilo mbalit nga indi ñu defal la chèque nga jël sa xaalis dafay am ci réew yi kon mbalit xaalis bi ci nekk nañ góor góor lu ba di ko génne. Euh, ci lu soxal nag euh, liggéey euh, dëkk bu sell bii di Medina bàyyi ak projet assainissement bi nga xamee ne mouvement bi am na ko ci lu ni mel nag doon na lu yitteel lool Adja Seynabou jàlloo ma ca lëngoog ñoom ngir yéene gi mën a antu lu ni mel itam tax na ma nga leen doon xelal ce geneen wet ga nag ab conseillère municipale la na bu jàlloo ko Cheikh Ababacar Dieng lii lancement la rek ndax man médina rek moom ma ñor amul leneen lu ma ñor su may politique Medina tax may politique su may liggéey Medina tax may liggéey yàlla def na képp ku ma gis rek nga ne Medina nga bugg a defar danaa ci taxaw yow xale yi keroog ba ñu ñëwee sama kër xaw ma leen biñ toogee wax ak man ne ñun de Medina moo ñu tax a jóg dañoo gis ren neweti ren bi ni ñu sonnee ñu bëgg balaa gàmmu déwén gi ñëw def assainissement médina man leen ah yéen suma lañ ngeen génnee ndax man loolu rek moo ma intéressé Medina pour lu defar Medina rek da ngeen di defal Medina tàllal naa leen sama loxo man tam maa ngi ci biir lépp lu ngeen nekk rek dugal ma ci dugal sama alal bañu ma ci dugal dara ndax moo ma intéressé su ma sañoon mooy gën ci Sénégal mooy gën ci àddina bi mooy gën a rafet nit ñëpp danay silwise mbedd yi silwise yëpp silwise daanaka ñi ëpp ci ñoom bitim réew lañ nekk ñi fi dëkk fii ñu tuuti lañ ma ne leen léegi jarul ngeen di ñu nekk bitim réew léegi yéen ñi nga xam ne yéen nekk kaw ak Kees ak fii dajale leen ku ci mën a ñëw rek ngeen ñëw def lancement su ngeen defee lancement su intéressé nit ñi danañ ci dem su intéressé wul nit ñi tam yéen li nga xam ne moom la leen yàlla jox ak li nga xam ne suñ ñaanee ci yàlla baay dana ñu dimbale ndax partenaire yaa ngi fi man de danaa leen jàppale bañ am ñoo xam ne lii ngeen soxla nii da ngeen ko am te am naa yaakaar ne lii ngeen bëgg nii dana dem bu ngeen ragal nag bu ngeen yox-yoxi bu ngeen wax na oote nañ lii nangam naa nangam déedéet gis nga ñaari nii rek mën naa defar man bi may defar mel ni nag kenn joxuma dërëm man sama dërëm rek laa doon defee maa ko fi defar bon loolu su amee bu ngeen ragal xam nga li gën a bon ci àddina commencé ay yëf rek gis fii yàlla moo leen habitué loolu dañoo yaakaar ne rek xëy na nekk seen kër yi lekk ba suur mooy seen addina mbedd yi moom waxuñ ci ñoom dara ndax fi mu ne nii da seen mbedd moo romb foos yaa ngi fees dell tey bu canalisation bi doxoon tey kenn dootul gisati ndox ci mbedd mi danañ mën a defar mbedd yi maase la ko ba mu rafet waaye loolu yëpp amul soo ootee na politique la ñuy def ñëpp danañ ñëw uy si la nga ñëpp danañ ñëw uy dañoo bëgg a defar Médina képp kuy taalibe Baay muy nga dëkk Médina muy nga dëkk Coofak muy nga dëkk Sénégal daal laay wax àddina bi yëpp sax da nga ñëw jàppale ñu pour lii xale yi bëgg a def ñu def ko. na euh, Seynabou euh, Diallo euh, ñu xusandi ci xibaar yi ak beneen poñ juróom-ñaareel bi édition forum ba nga xamee ne moom la COPEGA doon amal ci durée bu ñaari fan fii ci diwaan bi lu ni mel nag jeex na tàkk rido ya wàcc na ni ki démb moom nag njiital kuréel ga di Habib Thiam ma nga doon dikkaat solo sa ndaje mag la ñu fa tënkee ay kàddoom El Hadj Omar Cissé ñu ko baaxee. waaw sant yàlla beneen yoon tàmbale nañ ko ci jaamu jeexale nañ ko alhamdulilah ci li nga xam ne yaakaaroon nañ ko ci forum wax dëgg yàlla am na waxtaan yu am solo fi am te tamit li taxoon jóg nit ñi mooy euh, ñu jéem a xalaat seet ndax COPEGA liggéey bi muy liggéey béykat bi dina ci mën a béy di dundee am lu mu dundee ba nga xam ne aussi sécuriser aussi mu dundam pendant at loolu wax dëgg yàlla nañ ci nee nañ ay am na cest à li nga xam ne moom la jëkk def mooy dimbale béykat bi mu gën a produire lu bëri produire de qualité aussi su ko defee nga xam ne production gerte dafay yokk yaakaar naa ne loolu suñ ci tàmbalee ko ñu dimbale ko taxawu ko jox ko afrancais jox ko engrais yëpp ba mu bay ko mu mën a bay lu bëri bëri bëri bëri bëri ba pare jëndal ko ko njëg bu jéggi dayo bu baax bu baax su ko defee dina mun a am loo xam ne dina ko mën a jënde ceeb jënd ko diwlin jënd ko lépp pour mun a am sécurité alimentaire lool ci recommandation faar la ak recommandation yoo xam ne aussi suñu exporté aussi ñu wax ñu carrément kii la ñuy exporté mu leer parce que aussi bàyyi ñu ci biir nii ñuy jënd mu yàq suñu loxo aussi loolu aussi recommandation la ci pour ñu wax ñu exactement kii la ñuy exporté a xam fan la ñuy taxaw beneen bi aussi mooy euh, plateforme yi nga xam ne Chine daf ñu ko imposer pour ñu inscrire pour moom muy tànn ñuy exporter dàq nañ ko yàlla parce que boobu léegi ñu ngi jëflante ak ñoom bind protocole ba pare di ko respecté kon jaaduwul ñu ñuy andi leneen loo xam ne aussi pour ñoom ñooy tànn ñuy exporter wala déet parce que su yàggee chinois yi boobaa dinañ ko jël suñuy loxo ñoom ñoo koy tànn waaye ñun duñ ci am benn dogal loolu aussi dañ koy dàq bokk nguur gi nga xamee ne amoon na nag ndaw lu ko fa teewe woon euh, terewul ne tam ne kii di Habib Thiam ma ngay euh, xamle ne lu ni mel daa ñu ko tënk ci ab bataaxal bu koy gën a euh, jëmmal lu may loolu itam sant na gërëm partenaires yi nga xamee ne ñoo leen gunge ci liggéey bi ak jawrin ba leen a jaboote ay kàddoom ba tey ak El u Oumar Cissé. ak yoo xam ne aussi pour DPV ak inter bi nga xam ne am nañ ko pour mun a am ay matuwaay yoo xam ne pour liggéey liggéey bu mucc ayib loolu yëpp waxtaan nañ ko ay recommandations yoo xam ne bëri na juróom la ko xam naa dinañ ko def ci këyit ji bol ko nguur gi mun ñoo bàyyi xel waaye DG bi nga xam ne fekkee woon na ko bàyyi nañu xel xam na lu ñu wax bu baax te nee na aussi dina ko yeggale fu nga xam ne aussi foofu la war a yegg comme ça ñu mun ci xalaat loo xam ne pour am na ne aussi solution yoo xam ne ñun ñëpp dinañ mën a liggéey ci jàmm ak salaam waaw comme ni nga ko waxee ki fi toogal jëw ni ñu dénk wàllu mbay mi docteur Sow moom moo ko fi teewaloon déglu na seen i ñaxtu déglu na seen i ay tontam ci biir salle bi ce que seen xel dal na par rapport ak ñu saafara yu ni mel na ci te rafetlu na aussi liggéey na ko te tamit fi ñu jaar aussi mooy bind nañ taarix ci Sénégal ci wàll gerte COPEGA bind na ci taarix ba pare loolu moom nangul nañ ñu ko te xam na ne aussi ñun tamit dañoo participer ci li nga xam ne mooy développement baykat yi ak euh, àll bi kon loolu nangul nañu ko moo tax fu ñu leen oo dinañ ñu te lu ñu leen wax danañ ñu déglu te danañ bokk ñu toog di waxtaan ci li nga xam ne aussi mooy jëriñ filière bi te jëriñ baykat loolu ñu ngi ko koy nangul dëgg yàlla di ko ci sant di ko ci gërëm aussi di sant ministre de l'agriculture ko évalué moo xam ne yebal nañu ndaw lu mat ndaw wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant di gërëm ñaan yàlla yàlla na ko fekkee ay déwén di ko def te kenn bañ a manqué te déwén bu ñëw rek béykat bi mën a gis boppam ci li nga xam ne aussi moom lay liggéey incha allah ak di gërëm aussi partenaires yi nga xam ne ñoo ñu accompagner sans ñoom aussi lii dina jafe waaye loolu yëpp ñu ngi koy teg ci nga xam ne aussi mooy ngërmande yàlla rek suñu gërëmee yàlla gërëm partenaires yi yàlla yaakaar naa ne mën nañoo nangul te boobu suñu nangul rek dana gën a jëm kanam incha allah xabaar yi bitim réew xabaaru euh, biti réew Alioune Badara Diop ana foo koy dooree. jërëjëf euh, ngoone Ndiaye ren xibaar bitim réew dañ koy door réew bu Tchad di wax ci benn cong boo xamante ni nemmeeku nañ ko foofu ca sud est bu laat bi nekk foofu ca province bu réew bu càdd li ni mel ak jur na ay jéy ba tax luy tollook ñaar fukk jàpp ñeent fukki soldat yoo xamante ni ñu ngi bokk foofu ci réew bu Tchad ñàkk ci seen bakkan ci fàttali li ni mel la mu ngi am ci talaata bi ñu weesu ñaar fukki fan ak ñett ci li ni mel la ñu ko jot ci njàppandalu présidence bi nekk foofu ci réew bu Tchad ñoom moom la ñuy yëgal ni cong boobu lee daf leen a bett xabaar yi bitim réew dem ba réew Burkina Faso wax fa beneen cong boo xamante ni am na fa ba jot a jur ay jéeya luy tolloog fukk ak ñeenti doomu aadama ñàkk seen bakkan naam sax dañ ko fa faral di ne meek waaye lii di groupe jihadiste bi moom moom li ñoo def li ni mel foofu ca noor bu réew bu Burkina Faso naam sax kaaraange gi moom dolli woon na ko ci fan yi ñu weesu wante teewul ne groupe jihadiste yi moom ba tey ñu ngi def seen mëneen foofu ca Burkina Faso xabaar yi bitim réew dem ba fi nga xamante mooy Jérusalem wax ci benn bombe boo xamante ni mu ngi explosé foofu ci benn station boo xamante ne ay bus dañ fay gaare li ni mel nag jur na ab jéyee ba benn doomu aadama jot ci ñàkk bakkanam lu toll fukk ak juróom doomu aadama jële si ay gaañ-gaañ yu métti mbir moomu léegi dañ koy faral di nemmeeku naam sax kaaraange gi moom dañ koy faral di yokk bu baax a baax foofu ci Jérusalem wante teewul ni groupe islamiste palestinien boobu lee di Hamas moom moomu lee mu ngi ñaaw lu baax li ni mel rek ci dolli di dolli kaaraange gi foofu ca Palestine xabaar dañuy jeexale xibaar bitim réew ak réew bu états wax ci benn explosion boo xamante ni am foofu ci benn supermarché ci fi nga xamante mooy Walmart li mel nag benn doomu aadama boo xamante ni moo ay ngàndaay moo dugg ci fi nga xamante mooy supermarché boobu lay ba def fa bi la jéyee ci li mel nag jot nañ nemmeeku nag ay doomu aadama yu bëri bëri jot ci ñàkk seen bakkan wante si jamono jooju nag bëri lool ay doomu aadama yi nga ko doomu aadama yi nga ne jot na ñàkk seen bakkan ci leen mel lim bi xamaguñu ko wante nag gaañu gaañ yi moom foo ko natt weesu na ko jërëjëf euh, Soxna Ngoone foofu la ñuy boori xibaar bitim réew yi cant ak ngërëm ñeel la jaa ngeen jëf. xabaar yi bitim réew. bak euh, boobee kon euh, tàggat yaram gi euh, lay yëgle Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. gone Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu mbokk auditeurs yi ñaanal leen jàmm ko ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dafa yóbbu ca Qatar dem nag dënn wàccatina foofu ca biir Qatar ndax Japon mi daal di door ak ab ndam boo xamante ni bind na ko ci taarixam muy guléet ci kanamu yi ginnaaw bi mu ko daanee ñaari bal ci benn ci beneen wet gi nag. ñu di espagnol yi nag dañoo jàpp ak Costa Rica tëcc leen tëcc yu métti juróom-ñaari bal ci dara Maroc daal di taw ak Croatie lu ko jiitu ndam demul ndam la groupe G bi bëccëg bu jëkk bi tey la ñuy door ñoom Suisse mooy laale ak Cameroun Brésil di laale ak Serbie bu dee groupe H bi seen bëccëg bu njëkk tey lay door Uruguay di laale Corée du Sud bu benn waxtu jotee Portugal di laale ak Ghana bu ñeenti waxtu jotee affiche yu tey ji nag ak juróomi représentant africain yi nga xamante ni ñoo ñu teewal ca Qatar tey réewum Cameroun nag rek moo nekk ci affiche bi daleen ak jàmm affiche yi yoonu Qatar 2022 كأس العالم قطر 2012 المنتخب اليوم La première fois, c'est toujours sur Al Faïda. Qatar 2022 ñaar fukkilu édition bekk ñaar bu coupe du monde bu FIFA Qatar 2022 ma ngi am ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre ba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre ca émirat bu ndaw bi nekk ci péninsule arabique bi juróomi dëkk ngi mii ñoo fas yéene teewal continent africain bi ci mondial bi ni mel mondial 2022 bienvenue à Qatar welcome to Qatar affiche yoonu Qatar 2022 كأس العالم قطر 2012 المنتخب اليوم la première Al Fayda ci fédération camerounaise bu football ñu koy wax FECAFOOT ñu leen di dàkkantale gaynde yi déggul jet yi réewum Cameroun nag bokk na ci juróom-ñetti phase finale coupe du monde di record boo xamante ni mu ngi ko téye fii ci Afrique waaye tamit di équipe bu njëkk bu dem ca quart de finale ci atum 1990 ginnaaw bu ñu yegsee ca Italie ci coupe du monde ba Cameroun yi daal dinañuy créer surprise ci compétition boobule ndax ca match d'ouverture ba seen digganteeg ki yoroon raay ji di Argentine bu jéego Armando Maradona Cameroun da koo daan benn bal ci dara bitu François Oman Biyik atum 1994 Cameroun daal di jël ñett ci ticket yi war dem ci coupe du monde nekk ci groupe boo xamante ni dina fa fekk réewum Brésil dikk mu jël a jur boobale coupe du monde ak Suède ci boobale coupe du monde ci wërngal bu njëkk ba leen toogee waaye réewum Cameroun amal nañu fa ñaari record benn bi di défaite bi gën a yaatu ci football ci seen taarix juróom benn bal ci benn ak beneen record boo xamante ni di football bi gën a màgget ci taarix daal di dugal ci coupe du monde di Roger amoon ñeent fukki at ak ñaar diggante 1930 ak 1962 Cameroun bokkul 1966 dañ ko forfait 1982 mu toog ci tour bu njëkk ba 1990 mu nekk quart de finaliste atum mu toog ci tour bu njëkk ba atum ca France 2002 premier tour ba la toog ca Japon 2010 Afrique du Sud ci premier tour ba la toog ca Brésil Cameroun daal di toog ca premier tour ba Qatar 2022 seen bu njëkk ñi ngi koy am amal si digganteeg Suisse ñaar fukki ñii di yi déggul jot yi nag seen bokk ren ci coupe du bi neexul dara yombul woon dara ndax Cameroun ci tirage au bi nekk na ci groupe difficile groupe G boo xamante ni da ko bokk ak Brésil bu Neymar Suisse bi nga xamante ni moo daanoon waa France ca Europe ba ak lii di waa Serbie ki ñëpp di xaar nag def seen yaakaar ci moom moom mooy seen attaquant bi di Karlo Toko Ekambi nga xamante ni moom mooy coupe du monde bu njëkk waaye tamit juróom fukkeelu sélection am dugal na fukki but ak ñaar ak lii di waa Cameroun. seen affiche Qatar 2022. seen affiche Qatar 2022. Magog Gone Jaay gannaaw ba la ñaanalee kandaa yu jàmm li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi jaa ngeen jëf. li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf. promobile société sénégalaise la bu yëngatu ci wàllu téléphone mobile ay sénégalais ñoo ko taxawal ngir sénégalais yi crédit promobile mën nga koo am jëndee ko ci walet yi bokk na ca Wave Orange Money Wizall Digicash léegi tey mu am ci Kpay jokkoo leen ak ñoom ci 75 333 33 33 promobile Kaolack ña nga RN1 agence Cheikh Al Islam immeuble Mame Diarra promobile seen opérateur mobile bu bees moo leen di may li ci yéene kaay. kuntuur woyofal yi woyofal leen seen adduna ak Senelec moo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci euh, yéenekaay yi ak El Hadji euh, Seydina Omar Cissé. lan bikum tey benn boutique du ubbi Sénégal jaaykatu boutique yi fa ñoo geraw ndax li leen nguur gi sant ñu wàññi far force fra force doole mbaam njëg dund gi te ñoom lañ jëndee woon lu cher jeexagut nee nañ loolu duñ ko mën kon yëf yi fa leen di gaañ mooy jëndee lu cher ba pare wàññi ko wal fa jëri yéene kaay ne moo taxit tey ci alxamis ji ak suba ci ajjuma ji da nga gis ku ngàbbu xaalisam du gis ku ko jaay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy na toolu yàmbaa ya robale daan bay ca Casamance rawatina faradooru Salif Sadio ya bés bi yéen kaay moo ñu xamal ne soldaar si armée bu Sénégal ma leen di song ak a yàqate seen toolu yàmbaa ya jàppante sax am na seen diggante ba ñaar si jàmbaar yi soldaar si am ca ay gaañu-gaañu laas yéen kaay di ñu wax bëgg-bëgg njiit réew Macky Sall ci fexee suqali post université Amadou Makhtar mbaw ba ci wóy laago yi ñëpp la bëgg a taxaw Le Soleil yéen kaay dëggal ko ne ci conseil des ministres démb njiitira Macky Sall fa wax njiiti jëwriñ yi na ko hëy faa bëgg ngeen accéléré gaaw lijjanti mbiru poste si du quotidien mais ni ko daan ko monsieur xam ngeen lan ngeen war a lijjanti dëgg-dëgg assemblée nationale é règlement intérieur bi wàllu tappale falsification moom lañ ci xamal ginnaaw tooxi doona ba fa amoon di trafiqué wàllu faux billet ak passeport diplomatique ya yéen kaay bi gàcce la lu yéeme ah Aliou Souaré ma ngi cee ay santé bi fa mu bëgg a jëmee wàllu wér yaram lépp wax na ko ci kanam député ya leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na Mame Mbaye Niang ministre fa porte plainte yóbbu ci yoon Ousmane Sonko njiital Pastef enquête yéen a kaay ñu ko xamal le quotidien yéen a kaay na faa lay xam nga lu tax mu porte ko plainte nee na Sonko fa koo tuumaal ne coowal ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent yu Prodac ya fa am ab rapport IGE boo xam ne fa caa kepp Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang nag nee na dëgg man benn rapport IGE épinglé wut ma ci le mandat yéen kon wax lu dëgg tuumal nit yàq der moom la ma def moo tax faa ko porte plainte critique yéen a kaay na ko yow nag fa dékku sonko ca wàllug yoon ba tax info yéen a kaay ne Mame Mbaye fa contre attaque ba pare leeral ne benn rapport UG taqalut ma man nag su ma tuumalee nit faay andi firnde ya kon faa bëgg ñu dem ci yoon sonko andi firnde yi leer leneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy na Khalifa Sall jiite ba mu jiite woon yeewi askan wi mandat ba jeex na boobaak léegi mën naa xadde ba la war a journal na kon nag Khalifa léegi kaala ca yeewi askan wa keneen ku yaaw seetal réew mi yéen kaay moo ñu xamal na Cheikh Ahmed Cissé takk dere teg nañ ko loxo ma nga gardaaw yi ndax waa jamra yi ñoo ko porté woon plainte ci wax ju rëy ju ñaaw ju garaaw jim fi waxoon ne fa war a jël li góor ñi jëfandikoo bu ñu jaxasoo ak jigéen nañ ko séddale ci jàkka ak jumaa yi moo tax takk dere jàpp nañ ko keneen ko takk dere jàpp bañ jàll ko ca kaso ga journaliste bi ñuy wax Pape Alé Niang turbine yéen kaay nee na fi mu toll ni gaañ yi xam nga lu ñuy moo doon jox Pape Alé Niang xibaar yi mu doon jàllale gaañ yi dem nañ sax ba ca Sonatel dana am ñeneen ñuñ teg loxo ci mbiru Pape Alé bi alerte yéene kaay dañu xamal na réewum Sénégal fa rëcc fa ñoo xam sens gis ngeen sira sëqat boobu nga xam ne fa doon rey ay xale Gàmbi tuuti ko doon mu dugg ci réew mi fa ñoo rëcc de ñeneen ñuy rëcc ginnaaw buñ songee askan wi génne ay fetal di jël seen xalal léeg si ko yéene kaay nee na si ñu préparé de xam ne fi mu toll ni état bi fa cee xar tànk tubayam génne na ay ngàndaay yu mag te bëri jox ko armée bi soldaar si ngir ñiy song askan wi ñoom ñu song leen gàntal seeni pexe <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi mooy ne ñaari soldaar réer mër te ñu leen di wër ña ngay ruumandaat na kenn ca ñoom gis neen ab ñëwam napp kat moo ko gis ca géej ga libération moo ñu ko xamal adjudant chef Didier Badji ak sergent Fulbert Samb mooy ñaari soldaar yi réer ñi leen di wër source a ne faa lañ ciy jox ay xibaar yu garaaw ci ñaari soldaar yooyu yow seetal fa ñuy wax ne samedi lañ réeroon déedéet du samedi àjjuma la te fa ñoo wax ne ñoom ñaar fa ñoo àndoon dem napp ji ndax fa ñoo bëgg ñoom napp seen waxtu noppal yi ci géej gi lañ koy def njabootu ñaari famille nag tey bu 15 heures jotee xibaar yi l'observateur nañoo yey de ndax ñuy seen réer gi ñu réer fa yéemata doy waar am na sax ay xibaar yu ciy génn marine nationale ñoom génne nañ benn niiw boo xam ne ña ngay xool kan la ci ñaari soldaar yooyu dëkk ba ñu fekk baax nag ñoo mun gannaaw ak jaaxle ña ngay tëkku ndax seeni jege ñaale ne nañ bu leen kenn wax ne ñaari takk der ya fa ñoo lab ca géej ga dee déedéet loolu moom duñ ko nangu ki fi nekkoon chef d'état bu armée bi général Mamadou ma ngi cay àddu ca biir ma ngay leeral ne gaay yi ci lañ nekk bëgg a ba créer histoire yoo xam ne dara amut ci loxo ak ñaari alkaati yooyu nga xam ne fa ñoo réer te loolu daraa ci amut jegewuñ ma sax ci 24 heures yeneen kaar moom Pape Alé Niang nee na man sos gu bàyyeekoo ci état moom lañ teg sama kaw ngir sànk ma ak sos lu ak wax lu du dëgg histoire yi ñuy inventé nag fa ñoo xam ne buñ ko defut fa ñu mujj am gàcce moo tax ñu lay jabaru kenn ci ñaari soldaar yi ñu wax ne fa ñoo réer ma ngay nettali ca l'observateur dund gu métti gam nekkee keroog bi mu déggee na jëkkëram fa ba léegi nee na lekk sax mënatuma koo def ay ndey saanam goren promobile société sénégalaise la bu yëngatu ci wàllu téléphone mobile ay sénégalais ñoo ko taxawal ngir sénégalais yi crédit promobile mën nga koo am jëndee ko ci walet yi bokk na ca Wave Orange Money Wizall DigiCash léegi tey mu am ci Kpay jokkoo leen ak ñoom ci 75 333 33 33 promobile Kaolack ña nga RN1 agence Cheikh Al Islam immeuble Maam Jaara promobile seen opérateur mobile bu bees moo leen doon may li ci yéene kaay ak kontoor woyofal yi woyofal leen seen àdduna ak seen lekk moo leen doon may li ci yéene kaay yi Euh, mangook li ci euh, yéeni kaay yi Choukran euh, El Hadji Oumar ponk boobee sax nag mooy jeexal xibaar yi jaajëfal nañu leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci wàllu déglu gi jaajëfal Codou Seck kenn mi ci xarale gi Mouhamadou Khalili ci parti digital bi waaye du ñu fàtte waa rédaction ak waa production ci njàppandal gi ñaanal nañu leen mucc ak mucculee jàmmi biir ak biti tawféex ak taysiir jaa ngeen jëfati journal Ngoné Ndiaye Reine